Donc, euh, ces accusations de corruption portées contre le, le, le Conseil constitutionnel. mais xam nga xam nga aujourd'hui euh, le président Macky Sall euh, les gens de son parti bi ñu ko nee simplement yow da nga bëgg def troisième mandat dafa doon dàq c'est-à-dire man les magistrats du conseil képp ku leen accusé da nga war a ay preuves dañoo waroon protéger parce que. président Macky Sall il est le garant du bon fonctionnement des institutions quand des gens se permettent d'insinuer des choses ou attaquer en tout cas des des des des ay magistrats yoo xamante ne ñu ngi ci oran bi ci ci ci magistrature yi c'est-à-dire que président warul nangu loolu muy benn la seconde chose mooy bu nekkoon jàppee na li mu jàppee boppam mun na am li ñu fegg parce que ñi ko doon wax troisième mandat rek daf leen mais ñoom ci boppam ñi ko doon wax waa PDS njëkk wax ne corruption ba saa commencé di wax ay waxu velléité dégg naa seen président groupe parlementaire mu koy wax non c' est des de corruption et cetera et cetera mais finalement commission d' enquête la mujjee mujjiwul fenn la preuve li nga xamante ne moo nekkoon seen seen exposé des motifs seen seen yi sax dañ ko mujjee altéré carrément pour parler de suspicion et cetera et cetera parce que amuñu luy consistance et PDS les connaissant en tant que fin policier en tant que de personne euh, jusque là ils n'ont rien brandi mais def nañ ko tremplin pour jël loi pour indi situation chaotique bi moo tax ma ne PDS tey jii nii lii Sénégal dugg am nañ ci responsabilité bu mag a mag a mag a mag et c' était pas ce pourquoi nous avions cheminé avec eux di jël suñu ay euh, suñu ay voix leen ko yokkal pour ñu mën a am lu ñu am si ay député am nañ seen ay député ànd nañ ak Macky Sall dialogue pour bloquer Ousmane Sonko mais ànd nañ seen ay député yoo xam te ne yokkal leen leen ko mais ànd nañu aussi ak président Macky Sall pour dàq élection indi situation chaotique bi mais revers day amaat mooy ñun liggéey nañ pour l'opposition sénégalaise jàppale dans le cadre de l'intercoalition Yewwi Wallu jàppale leen jox leen ay voix mais tey li ñu def aussi askan bi mi ngi témoin encore une fois on travaillait ci trois grands projets mais aboutissement mooy ëpp doole mooy la fonction présidentielle donc tey jii nii ñun on a hâte d'aller aux élections ñoom ñu taxaw keneen ak keneen taxaw et ñu xool ce que